asalaamu aleykum wa rahmatullah la hawla wala quwata illa billah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xoqdatan min lisaani yafqahu qawli subhanaka la xilma lana illa ma xalamtana mbokk yi nga xam ne nooy topp Wadduha TV seen mbokk Alxaaji Modou Cissé moo leen di siyaara di leen ndokkeel si saxru ramadan al mubarak bi nu nekk weer wu màgg wi nu nekk nga xam ne daf nuy indaaleel ñetti service muy raxma muy maxfira waaye muy xetqu mina naar weer wu màgg bi nu nekk nga xam ne si lanu wàcc alxuraanul karim weer wu màgg bi nu nekk nga xam ne guddee ngi ci guddi goo xam ne xayrun min alfi sahrin mu mel ni ki weeru bonis la weer bu nu war a gën a profito ngir gën a yokk sunuy yool ak sunuy yiw fa la su borom bi wax na si xadisul qudsi asawmu lii wa ana aj si bihi mu mel ni ki lépp lu lépp lu nit jëfal borom bi yàlla mën na la ko faye neneen waaye danay koor moom sans intermédiaire man maa la koy fayee direct muy xibaada boo xam ne farata boo xam ne ku koy dëggal rek sore nga ak naafeq ndax eh, nit mën nay tricé di julli jullilu nit yàlla mën na koy may moyen macha allah mu dem màkk ay yoon nit tamit mën na am wërsëg macha allah di joxe asaka fa tabarakalaa yooyu yëpp nit mën na koy def la lalaale sa ngistal ak gis leen ma waaye koor mooy loo xam ne da ngay bàyyi lekk bàyyi naan li koy dale fajar ba jant di so te loolu nga bàyyi mënoon nga koy def te benn jaam du yëg ne def nga ko wala mu xam ko lu dul borom bi jalla jalaaluhu loola nga ko lanka def nag na xam ne am nga borom bu bind bula ko sant te mu ngi lay gis mu ngi lay dégg motax fa tabarak la muy farat bo xamne kenn du ko def ak ngistal muy farat bo xamne fa tabarak la ku ko koy saxar rek wala nga warmaal ko man nañ la gëna a nangul sa jullite macha allah nu si ndokkeel adina bépp macha allah di si nuyu tay tey suñu kilifa yi dine di ñaan yàlla yàgg leen fi lool lool lool lool te mu ànd ak wér macha allah ndax dinaa koy wax ne al xulama warasatul anbiya ñun loolu war nañ koy gëm jullit yépp it war nañ koy gëm ndax fii Sénégal yàlla may nañu kilifa yoo xam ne saa yu nu santaane nu def bu nu taree nu bàyyi tey fa tabaarakala lan nuy sant lépp lu nuy jariñu ja fii si addina waaye ëllëg euh, àllaaxira te ko am kilifa yu mel noonu war nga di leen ñaanal nu fi yàgg di lay digal ngay jëf waaye nu fi yàgg di lay tere ngay bàyyi fa mu mel ni ki danañ fa fekk waddu xa solidarité bokk na si sunuy mébét nuy yéene di def solidarité at bu nekk machallah donte weer bu nekk ak bët bu set nu tàllal loxo ndax machallah li ni jot si ay si ay cas yoo xam ne dañuy soxla aide takku na takku goo xam ne dañuy tàllal loxo àddina bépp macha allah yéene bi nga xam ne am nanu ko te képp koo xam ne e, yàlla def nga def na nga am yaakaar si ñun si côté solidarité sunu jokko boo nu wooyee. sunu kéemtulaay man-man nu taxaw la si dan see xaw néew doole loolu tax nag ma ne dina def vidéo bi si weer bu màgg bi nu nekk muy sax ramadaanal mubarak tàllal àddina bépp loxo ngir képp koo xam ne bëgg nga dimbale jullit te yàlla rekk tax te muy sadaxa boo xam ne macha allah danga koy def li wajhillaahil karim si mbaaxu borom bi nu ànd si ak yow lépp lu mu manti doon moo xam dund la moo xam koddaay la moo xam xaalis lu mu manti doon rek si kàttanu yàlla bu ñëwee si Wadduha bari na lool lool lool jaamu yàlla yoo xam ne yàlla dinay def seeni yaakaar nu nuy woo bu ko defee nu man len koy partagé macha allah te jamono bu doon def ndimbal wala solidarité ren la war a raw waaye si gi nu nekki la war a raw ndax bo seetee macha allah ak li xew nu di koy wax Covid 19 Covid 19 liggéey yu baree baree baree sooxandi na macha allah lu daan dox. mën naa am day temp léegi lu daan daw day dox léegi simisal ne nanu ko doon waxee rek ne lu nu yàlla teg la te nuy ñaan yàlla teggil na ko comme ay jullit la nit jullit amul lu dul ñaan nu dugg si weer boo xam ne nu ngi ñaan yàlla si barke fukki fan yu njëkk yi yàlla gën nuy yërëm ba nga xam ne fa la lii di mbas mi day tàggoo bu ko defee aussi si ne mën a dellu si say activité seen mbokk al hadji Modou Cissé ak wa doha solidarité no len di ndokkeel di len wax ramadan al mubarak di tàllal loxo adina bépp comme ni ma ko waxee woon rek lu ci waaye def rek jiital nga ko sey téré jëf ëllëg te ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallaah nit wërsëgam la mu si am rek na ma koy wax mooy la mu sol mu rab la mu lekk mu rees ak la nga xam ne daf ko def li wàcci laa def ko te jëmi yàlla rek rek rek rek tax fa tabarakalaa kon nu ngi si woo àddina bépp képp ku nu bëgg gën a dimbale wallahi li ni jot si ay kaa yoo xam ne eh, macha allah tolluwaay bu tara tara tara tar la dem ba toll foo xam ne da nga bëgg a teggil sa bopp faratay koor ndax nee nga boo wooree yaakaaru loo doge xam nga loolu macha allah xaw nay diis ak yeneen ak yeneen ak yeneen macha allah kon bu kenn xeeb dara macha allah Wadduha solidarité depuis 2016 lañu ko taxawaloon nu ngi siy nab nabi sunu kéem kattan sunu kéem kéem kéem kattan. waye bëgg sé gëna talal loxo adina bëpp lépp lu ci bëgg def te jëm yalla rek tax su joko ak ñun si sunu way si kattanu yalla dinañ ko taxaw ba loola mu def te jëm yalla rek tax nu set jaamu yalla yi nga xam jël nañ seeni tour ak seen numéro téléphone ku si nekkit nu jox la ko fa tabaarakalaa nga mën see gën a numéro jokkuwaay bi 77 la 617 70 44 fu tabarakala ku jaar foofu rek di nga jokkoo ñun direct incha allah nu ngi leen wax kullu xamin wa antum bil xayr yàlla nangul nu sunu koor yàlla fajal nu xaajo yi yàlla yokkal nu sutura yàlla dàqal nu lépp luy gàllankoor ak safaan ak musiba fa tabarakala yàlla gën a barkel yëngatu yi ni ma koy waxee yàlla gën a wéral cër yi waaye tawat bi nga xam ne moo gën a yaatu te muy tawatu ñàkk yàlla gën na koy dàqal ndax comme nanu ko waxee rek xawoon tuut rek ak ñàkk yóbbu nit si yéefar te muy nit fa tabarakala su ñàkkee rek danay def loo xamee amaana bu doon xéewal nga fa wala sutura dina ne lii kat lu ma war dana ko jomb wala mu koy def te na ma koy waxee koo gis rek am na ku mu féete kaw koo gis rek am na kamu ku mu tene fi tabarakalaa kon ki yor téeméer na xool si ki nga xam ne fukki dërëm la fanaanoo ka fukki dërëm xool si ki nga xam ne ñaar dërëm la fanaanoo yor ñaar dërëm xool si ki nga xam ne amul dara lu nekk lu mu lu nekk ak moom bu ko defee ku si nekk rek bu dee sotti sa ka nga si ki nga sut si ki nga sut fa tabarakalaa ka gën a suufee kon dana mën a yëkkatiku moom it ba mën a suturlu fu kon daal seen mbokk Alxaaji Modou Cissé moy woo ñëpp si weeru koor bu màgg bi si solidarité solidarité si kàttanu yàlla lépp lu waay bu kenn xeeb dara moo xam koddaay la moo xam dund la euh, fu tabarakallah muy ceeb wala suukar wala wala wala moo xam tamit xaalis la lu si ñëw rek si kàttanu yàlla incha allah dinañ euh, woo jaamu yàlla yi yan ñuy jox seen numéro tey sàkku ndimbal ndax dañu se daanan si jot waaye ren dafa gën a gën a gën a takku fi tabarakala moo tax na ne dinañ bàyyi vidéo si ñi nga xam ne yàlla boole nañu ak ñoom kenn bañ a xeeb dara nag kenn bañ a xeeb dara wallahi boo ne ñaar bi rus naa ko joxe da ngay xool si ki nga xam ne fi tabarakala juróomi dërëm yi mu jëndee tàndarma ak kaasu kafe boo xam ne mën na ko daggee kooram jafe na ko bu ko defee lu ñëw rek ay dërëm dërëm su yàggee doon dara fi la nu ngi jéggal lu baax si kàddu yi bu fekkee am na lu si safaanu di leen yéene yiw nanu ko di leen yéene lu nu yéene suñu bopp fi tabarakalla di ñaan yàlla nangul nu tabarkel nu wasalaamaaleykum wa rahmatullah